sëriñ bi nee na alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati mu ne ñu ngi gën a sant bu baax di gën a gërëm ci taxawaay yi mu ne kon nag bu ñu ci kenn mag mu ne nii rekk la mu ne na jublu gi di genn yitte ji nay yenn mu ne bu ñu ci kenn mag mu ne nii rekk la mu ne lépp mi ngi ci loolu mu ne jublu ji ak yitte ji rek mu ne jublu gi nay genn jublu mu ne yitte ji it nay genn yitte mu ne buñ sooboo ci woowu yoon mu ne suñ lépp biir ak bitt day defaru mu ne suñ lépp it day yomb mu ne ci lii ñu nekk ci la suñ noflaay ji nekk mu ne suñu ci la suñ noflaay nekk mu ne te dara jiguñu tey ëllëg lu dul sóobu ci wii yoon rek noonu rek la deme jërë ngeen jëf mu ne ñu ngi ñaan ngatanuk sëriñ bi rek ak wommatam ci ngëneelam ci mbaaxam ci darajaam ñoo ngi ñaan loolu rek di sant ñépp mu ne loolu itam ñoo ngi sant ñi ñu ko bokkal ñépp mu ne xam na ne ña ngay def seen kéem kàttan mu ne kon dañuy ñaan rek ngatanuk sëriñ bi rek ak wammatam jërë ngeen jëf na ñépp tàll seen loxo bismillah